Voilà, je me présente, c'est Hadija Goloko, étudiante à l'UVS, e licence 3, présidente de Léo Club Dakar Colombe et fille de Lions Club International. Léo Club, action sociale qu'est-ce que la Léo Club action sociale qu'est-ce la c'est On s'est vu la journée mondiale du sida. Après, on a longuement discuté.

cérémonie bi occasion la pour nous, pour ñu remercier Sonatel vivement suñu partenaire suñu xarit et je crois que Sénégal yépp war na gërëm Sonatel parce que Sonatel mënoon na yëm ci servir réseau jaay crédit ak yooyu ku nekk di woté fo nekk tay Sénégal yaa ngi connecté wu mais yemuñu ci lolu Sonatel

Encouragez-les, félicitez-les, et particulièrement le directeur général C'est euh, un drame, je crois que bi mu à la tête de la Sonatel Yagout, qui est à travers le monde Disney, je crois que ce n'est pas fortuit donc nous avons une population qui yéen a ngi accompagner Sonatel mais nous avons leen population gën si jàpp gën ndax nag koo xam ne bu amee sédd la je crois kooku jar naa jàppale. nga daw ci suuf déggoo ma de ñëw fii Abdoulaye Diop woowoo ma yow téléphone ay waay wàññil wàññil na daw tuuti waaw mës naa la ko wax benn jour amaa toog ak yow ne la Ablaye nga ne ma naa ma ne la man de man mii jëmm ji man lépp lu ma yëg ne yaa ngi koy def dinaa ñëw sa jëmm moo tax ma def fëgg naa la guddi nga jóg bëccëg woo naa la ku nga jóg sama téléphone rek laa yor dimbalil diw rek laa lay wax loo may wax na ñëw Oscar de vacances xam nan la Fourrière mii toog mbër la champion la fii la dëkk tey bu ma ñëwee sa géew fekk ma toog ci ginnaaw ndam la ci man dafa yàgg wax lu baax ci yow dafa yàgg wax lu baax ci yow xam naa ko booy bu jàmbaar a ngi nii. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ginnaaw bi ñu sante yàlla julli Seyduna Muhammad ñi ngi leen di nuyu di leen ziar ñi ngi nuyu ñaar rek nañuy nuyu mooy ñi ñi ngi nuyu ñi fi dëkk ñëpp ñi ngi leen di nuyu ñi fi dikk tamit ñi ngi leen di nuyu tabaarakallaa di leen ziar bu baax a baax di leen balu àq nag di ñaan yàlla subhaanahu wa taala yàlla nañ dafa naa ni kàddu yi sax matu ko woon Assane bu waxee rek wax na lépp waaye dimbalante yàlla moo ko njëkk a wax dama ne wa taawanu alal birri wa taqwa na ngeen dimbalante si def lu baax te kii ngeen di waxal dafay dimbale ni ñi si lu baax boo gisee ma jël kàddu gi di wax sax du man maa tax may wax waaye dafa am loo xamee ni daf ñu ko defal waaw daf ñu ko defal ñun daayira bi nga xamee ni fii laa nekk si moom laa yore daayira bi imam Babacar Dia di imaamu jumaa ji nekk suñu président daayira bi tabaarakallaahu ren bi ñuy def suñu conférence fii lañ koy defee at mu jot fukki at ñu koy def fii at mu jot ñu def ko ren biñ koy def fii biñ ñëwee wax ak moom gis ko def ni ma maa ñëw wax ak moom fii si kaw mun ma conférence bi ngeen def lépp loo leen soxla si matériel bàyyi leen man maa ko maa doo leen ma dimbali laaj ma na caam lan moo tax nga bàyyi jëw ba may ñëw léegi léegi dama Dakar laa doon liggéey ak waa kanam damaa dugg taxi bokk-bokk ma dugg toog am benn maire bu dugg toog maire maire moteur bi nii rek benn maire bu mel nii maire bu dugg toog am benn paa bu dugg toog taxi ba dem bay départ am benn tubaab bu dugg toog maire bi di jëw tubaab bi naan tubaab bi nii rek ngay def da ngay bàyyi seen ñëw sunu réew di xat-xat loolu joota bi maire ba Dakar na commencé wax maire ba di wax di wax di wax di wax di wax di wax ba yaraax coroxaan ci taxi bi commencé sëkk taxi bi daw taxi bi daw ñu ñëw ba fii nga xam ne mooy surtout tubaab bi bëgg wàcc na ko meer mi ne ko naan ko dem naan njeer koroog laa bàyyi jóg di leen gërëm di leen sant si déplacement bi surtout waa Sonatel Sonatel mention spéciale lay wax parce que man pourquoi ma wax loolu man dama liguey Sonatel daf depuis 93 la nek Sonatel ba 2008 kon yàgg naa Sonatel projet Sonatel yu beuri liguey nako kon donc xamna Sonatel bu baax ñu am service social service social bobu nga xamantene mom lañuy jappalé new di doole yi tey ji service social bobu mo def action pour prison yi jaarale ko ci organisation bii nga xamante ne Balde ak monsieur Fall ñoom ñoo ko yokk kon donc damay sawar ànd ak Sonatel liggéey ak moom man agent Sonatel laa woon jóge fa nekk ci privé bi dëkk biir Sonatel si cité Sonatel yi kon donc dama war a ànd ak Sonatel liggéey li ñu wax nag ci cadre social je crois que bu ñu ne social ndimbal la Euh, wax nañu média bi wala il faut ngay médiatiser li ngay def foofu ngay oo ñi ñi ñuy daje certes association bi ëpp na plus de mille wala deux mille personnes tey jii ñëpp teewuñu lu tax loolu parce que bëgguñu ko woon communiquer mu génnee benn folklore boo xamante ne finalement cadre social bi nga xamante ne moom lañ ci du li ut finalement politique lay mujjee nekk comme man yàlla dafa def suis un homme politique mais me séparer cadre politique à cadre social. Je remercie la Sonatel pour les actions qu'elle a faites au niveau des endroits des prisons, au niveau des MAC. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est des exemples. On doit copier, les autres entreprises doivent copier sur les actions de la Sonatel. Vous savez, l'État ne peut pas tout faire. C'est pour cela que les entreprises comme la Sonatel sont en train d'œuvrer dans le cadre social, dans l'éducation, la santé et dans les prisons. Donc on, remercie la Sonatel pour ces gestes qu'ils sont en train de mener à l'endroit de la population. Vraiment, on remercie la Sonatel surtout le DG de la Sonatel, monsieur, monsieur Dramé, ce qu'il est en train d'œuvrer depuis son arrivée, depuis son arrivée jusqu'à, jusqu'au jour d'aujourd'hui. On l'évite sur l'année 2020 pour les actions multipliées. Il faut qu'il multiplie ses actions sociaux au niveau national. On est en train de, faire les on doit continuer au niveau de l'éducation et au niveau de la santé. On remercie vraiment la Sonatel du geste qu'il est en train de mener au niveau national. On remercie vivement la Sonatel. Je remercie aussi, sans tarder, je vais remercier le, monsieur, Baldé et M. Fall qui nous ont vraiment confié l'équipement qu'on est en train de distribuer au niveau des MAC. Vraiment, je remercie tout le monde. Je remercie la presse. Je remercie l'association SMD. Je remercie Grand Yoff en entier. Vraiment, je vous remercie.